fekkee ne li ngay def ñemewoo ko wax ñu ko du Doundou gis génne album bu doy waar album bu dóob bu fekkee ne dégloo goo sound top 5 wala sound quarantième jour dawal dawal gaaw nga déglu ko ndax sound moom dina la faj dina la gaañ Dip Doundou gis njaago bi ñëwati na ak doole gannaaw ba nga xamee ne nag toog na presque lu toll di si un an wala deux ans génnewul li nga xam ne moo di album bi mu fi génnee bës ni tey ñëwaat génnee album bi nga xam ne nag moo di. DLK e ñëwaat génne LNN tey nag daal dinay ñëwaat retour génne album bu doy waar album bi nag mu ngi tudd lépp fii la ñu fekk lépp fii la ñu fekk bu diib dundu gis sorti na tey bi 18 heures jotee moom bi ginnaaw ba mu ko présenté fële sa Grand Yoff moom diib dundu gis ñëwaat na ak doole génne album bu doy dawal dawal gaaw nga dem déglu ji bile album ginnaaw albumu Omzo Dollar tamit tey jii la waxoon que ne moom la koy génnee le premier décembre bu dib duñu gis moom sorti na mu nekk album bu dóob album bu nice ginnaaw démb bi nga xamee ne albumu ak bees génn na bu fekkee ne dégloogoo bile album dawal nga dem déglu ji ko quarantième jour sound boobu déglu ji ko ak sound top 5 wop wop wop njaago bi ñëw na ak retour yee bile album nag am na ay fit am na ay featuring yu graaw am na ay featuring yu dóog yoo xam ne mu ngi si biir album bi ndax nemmeeku nañ si mu def fi featuring ak ki nga xam ne nag moo di Fada Freddy Fada Freddy nag buñ ko tuddee ñëpp day seen xel dafay dem si daara ji family moom ak ndongo ji moom ki nga xam ne moo di Dip nag dafa mel ni baaxoo na di def featuring ak waa daara ji family defoon na ko fi mook ndongo di sound defaat ko tey ak Fada Fada Freddy kon nag dafa mel ni dafay labbaliwaat rek moom mi nga xam ne moo di Dip Doundou Guiss album bi daw leen ngeen dem streamé ko ngeen dem jëndi ko ngeen dem déglu